mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak ndongali Cheikh Ndiaye Gana wax nañu ne Serigne Touba xaadala wallaahu maxtaaralahu li ñuy wax kal muy kalante ci wolof dafay mel ni diggante doomu bàjjan ak doomu nijaay ci lañ ko faral di gis sëriñ bi daana ko def waaye la ko ko tax a bàyyi mooy day def lépp lu mu wax rek mu am wax nañu ne am na julleek tabaski gu mu wax ne ñi sant buso fii nu toll ku leen gis seen biiree ña ngay daw waaye nee na noonu la amee loolu nag daf ñuy jàngal barke bi nga xam ne làmmañam wi amee na ko ak jubóo gi nga xam ne jubóo na ko ak sunu borom subhanahu wa taala ba lépp lu mu wax rek mu am am na ku mas a toog fi sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara ko di wax ci am xelam naan sëriñ bi kenn xamul lu mu doon sëriñ Tuuba xaadala la ko ne ko bu ma ñépp xamoon topp ma te kon lépp jàkk wallaahu aalam